wa sama gars yi len di ziar gars ñu ma yónnee message euh, gisuñu live tay et tout c'est normal normal euh, dama xaw tawat ni touti euh, donc dama ma donc c'est rien de grave dama dama soj et puis gis ngeen ne actualité bi voilà c'est c'est c'est un peu low et tout dara amul buzz yoy quoi donc hormis euh, waa Benno Bokk il y a y a y a rien euh, voilà on a même choisi déjà le candidat pour Beno Bokk euh, voilà donc actualité bi da mo xaw et puis mo xaw a touti dal mané daal ma ba dimanche dimanche prochain mais juste rek un suivi de l'actualité ah, donc dougalen une vidéo de de quelques minutes en attendant donc la semaine prochaine buñu défé au retour donc de voyage du président donc Macky Sall buñu Bissé ñooñu euh, si la ñuy def donc remaniement bi les choses vont bouger ñu mën a euh, euh génne yenn information xam nga man damay bëgg di indi ak ay ba ñëw ak ay bagages yu diis. ok kon na gars yi euh, jàppale remaniement bi donc dañ ko reporter et que. euh, ADD il est rentré dans les rangs euh, am na ñu ne sax euh, donc euh, voilà donc c'est c'est c'est c'est un homme d'affaires Arona Dia Arona Dia Finimel. mel mais d'après mes sources apparemment donc mun nañ ne si je ne me trompe pas voilà mon mon waxtaan ak Abdoulaye Daouda Diallo ba nga xamné demb gis ngeen ko jàkkaarloo ak askan wi euh, xamné da fay daal di jàppale kii di Amadou Ba candidat Benno Bokk présidentiel 2024 ndax il va mouiller vraiment le maillot ou pas on saura ndax dañu weñ loxom pression yee beuri ci mom et tout euh, on verra inshallah donc gis nañ né également gaay ba mo doon def live en direct gis ngeen né amna kuma joxone information ni ma le ministre du tourisme Mame aussi euh, génn euh, fi di euh, Benno bokku Yaakaar démissionné en tout cas du gouvernement voilà donc j'ai fait mes recoupements duguna naa ci ruqrukaan yeeg ñom seen ñu ne ma mambay Mbaye ci bopom mom néna c'est un pur maquiste mom maquiste mom mom maki la Macky Sall comme bokkul ci jongante 2024 présidentiel bi teg na ay jaajam mom dal bu ko ken bolé ci leen politique ci boppam sax la tégué ni moom daal Macky Sall mooy tax ba fa mu jóge mu jóg fa fa mu toog mu jóg fa moom c'est un Macky pur et dur benn patron la am muy président Macky Sall donc lu mu wax loolu la pour mu mouiller le maillot président Macky Sall comme Sall bokkul ba nga toog ci rukkam jël politique tege ko nii toog jàpp njàmburam bu ko kenn déranger kon nag affaire bi leer na ministre Mame Mbaye Niang na ma bamtuwaat ko fii démission amu fii c'est un pur makiste lu Macky Sall wax loolu lay def loolu la gem. comme Macky Sall bokkul nag jël na politique tege ko nii toog jàpp njàmburam di observe bu ko ken déranger. kon leer na waaw kay Légui nag gars yi euh, Abdoulaye Daouda Diallo aussi wax naa leen donc voilà donc il va euh, il est rentré dans les rangs euh, Mame Boye Diawo voilà xam nga waa ji day quoi ñu non buñ fa sax yag nonu bëgg na aussi gars yi semaine prochaine ñu indi aussi ay leeral ci Aly Ngouille Ndiaye Boun Abdallah John est-ce que alliance dina am que va faire Boun Abdallah John l'ancien premier ministre également parce qu'à un moment donné ça se jouait entre moom euh, euh, euh, le premier ministre Amadou Ba l'ancien premier ministre Boun Abdallah John pour qu'on xam ne porter candidature Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle bi aussi gros point d'interrogation dimanche prochain dina def le recoupement indil leen ko gars yi lu ma yëg damay nettali tey damay ñëw boole ji président Macky Sall damay ñëw boole premier ministre Amadou Ba Amadou Ba dégg naa am na ñaari traître yoo xamante ne ni kenn ki ñoom ñaar dañu def nii kenn kay toog këram kenn ki mooy mooy la larete sa biir kër ga. tam temps yi moom gars yi dañoo jël dañu jël amadu Ba ak ak doole li la larete biir këram ku nekk ngi ñëw di ko seet si ku nekk ngi ñëw ndax nee nañ moom mooy bës instant bi nii. ñaari traître yooyu ñoo nekkoon ci biir état bi di jàppale kii di Ousmane Sonko Ousou bébé boy si bi ma bamtuwaat ko. ces deux traîtres-là ñoo doon jàppale Ousmane Sonko ils sont originaires du sud président Macky Sall premier ministre Amadou Ba kii ñëw di que seet si bëgg a ci gouvernement bi moy tuul moy tul moy tul moy tul opportuniste yi ñun dañoo xeex ba fii egsi ba victoire kenn du du ko xajamal nay leer ah premier ministre defal attention ñooy ñëw ci yow bari nañu gal, faut filtrer ces deux intrus là

reyuñu benn gone dajjiwuñu magasin molo euh, molotov kenn sànnetu ko yaa ngi daw normal sénégalais yaa ngi ci seen jàmm kon waa expassif yàgg leen ci Sonko de ça m'amuse ça amuse les gens c'est du divertissement comme il waa expassif xale yi ay gone ñoo ca bari da a bëgg fo xale yi sa dañoo ànd ak yéen ci Sonko la def ko yufu yufu fo yem leen ci namu bi rek ndax namu Sonko bi suñu suñu suñu comme ba ngeen ko teg léegi ci fecc ak wéy wéy wi kon nag teg leen ko ci fecc ak wéy mi Sonko namu naa la ngeen di folklore rek pendant ce temps là Idrissa Seck ma nga ci rukkam di liggéey lu am solo di préparer 2024. pendant ce temps là Khalifa Sall nga ci rukkam di préparer lu am solo 2024 pendant ce temps la ki nga xamante ne ni moom mooy ah Karim Wade dégg naa ma ngay ñëw Sénégal Fara Wade njaag du noonu lañ koy waxee Karim Wade ngi ñëw de. biir biir ndakaaru doomu euh, euh, euh, le frère a Nafisatu Diallo sama sama sama xarit waaw kon nag Karima nga ñëw looluy buzz pendant que candidat yaa ngi réglé le di di di liggéey lu am solo a programme ya ya ngeen toll ca gradin Sonko nam naa la ay gone ngeen da ngeen di foo pendant que Amadou Ba ngi jéem a rallier ak ñoom seen gars yi waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci programme beeg PS bi di doxal et tout ngeen nekk Sonko nam naa kon foo leen dégg foofu ngeen toll da ngeen ci ay fo ñun ça nous amuse kon nag gaa yi fa may jeexalee moom mooy den jox ndox daje dimanche prochain man damay bëgg su ma ñëw indi indi du luur su ma ñëw daal recouper leen information yi ñu dëbb ba mu nooy diggante 17 heures ak waaw kay kon nag gars yi Euh, dégg naa ne président Macky Sall mu ngay ñëw États-Unis waa ex Pastef nee nañ dañuy sabote waa APR benn bokk yaakaar fàttali leen fépp bu ñu leen ëpp jom foofu laa yem. di jeexale ko nag ci benn benn benn benn benn message bu ma leen di leen di yi bu leen fàtte ne xeex bi ñun ñoo ko xeex opposition amee ngeen ñu njukkeel waa benn bokk yaakaar APR état bi amee ngeen ñu njukkeel ndax ba àll bu lëndamee ñun la woon. ba dossier Adji Sarr bi ñëwee si lañ feeñ si la feeñal lu bari ne Ousmane Sonko mi nekkati hypocrite la dossier Mame Mbaye bi ba ñu ñëwee dajj otom vitre otom moom usu bébé génnee ko cak-cak ko aller retour bal tàqul dara dégguñu dara lépp na selaw ñu tëj ko biir këram jour jours si lañ xam ne nekkati waaju du dara set il est surcoté waaye du tuus dossier Mame Mbaye Niang bi tax activiste républicain yi ak man mii ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci dossier Adji Sarr di ko di ci xeex depuis 2021 ñu nekk ci réseaux sociaux yi di raak tey jii bu Sénégal njaay amee jàmm ñu na candidat opposition comme pouvoir amee ngeen ñu njukkal bu leen ko mos a fàtte dossier Adji ak ñi ñun ñi nekk ci réseaux sociaux yi amee bu leen mos a tey jii ku jóg di wax amee ngeen ñu njukkal ndax xeex bi ñu ñoo ko xeex ba mu méttee ñu na voilà kon nak ki leen day Anita Diop namm naa na lool ba jaxatee ak ñom baax yaay activité publique yépp ak képp ku bokkon ci combat bi ñom Adji ak le ministre ña amel na ko njukkal kon nak gaay yi li la won dama xaw a tawat soj bari wax obligé rek tok ne nem rek jàdd ki bi rek nopp noppaliku daal su ma ci li dem préparer sama plat Euh, def sama benn plat akit it euh, voilà samay fruits de mer jóge foofu daal di dóor sama benn glace sorbet ah jóge foofu daal di laal sama film ñoom nekkati dunduñu woon nekk ci xeex rek combat rek mu 2021 ba tey ah mu nekk na ñu ngi dund. ñu ngi dund maa ngi dem naan samay togg samay sama plat bu baax bu toog kon nag leen di wax euh, jàmm ak salaam yàlla na nekk ci jàmm ñu dugg ci présidentielle yi bisimilah rahmaan rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin dimanche prochain ñu daal di perloo nu ñu koy defee dimanche bu jot incha allah incha allah kon nag vive le Sénégal vive la République te yàlla na jàmm yàgg waa ex-Pastef dégg naa ñi ngi waxtaan diviser ci seen biir ci plan bi je vous prépare du lourd sur ça kon nag jàmm ak jàmm gaa yaa ngi woote ba xam lu tax live amul et message yaa ngi takkar se kon nag fii laa yemale donc euh, euh, vidéo bi ba beneen